maa ngi lay maa ngi lay fay. tey nga ñëw ci stade bi sol sa bees blanc bu baax. ànd ak suma soxna Mami di ñaanal suma soxna yëpp di ñaanal sama soxna si dem penku Adja Debo Seck yàlla na ko yàlla indi ci jàmm di nuyu président du Diagne Diecko ndax bisu démb bi bisam la woon Habib moo ko tuddee. vraiment mu nekk lu rafet may wax rek ni rek làmbi tey ji làmb la may amateur bu mag a mag dëkk ci Géejawaay dox ndànk ñëw di la déglu ba nga laaj ma. te nga ñëw en tant que amateur di gën a Tonnerre ak ñi euh, nga xam ne mooy Dame Sène combat wu la ci wax. waaw Tonnerre day bokkoon na ci làmb ji di mbër mu am jàmbaar dëkk ci banlieue bi. ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu ñëw xam ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais tey daal maa ngi lay xamal ni Fallou Ndiaye tëgg na làmb tey daal làmb la may dellu rek di wax ni maa ngi gërëmaat Fallou ci lii mu defal caat caat suñu mbër la ci wàllu musique kon loolu maa ngi ciy gërëm jéey ndax lii initiative la boo xam ni jéey ko njëkk a def kon nag maa ngi gërëm Fallou di wax ni lii. luy defar làmb la ba laaj ma leneen le 7 août euh, euh, Diaw diggante Balla Gaye 2 ak Gris ak Gris Gris mu nekk combat boo xamante ni ñaari camp yëpp ko soxla na ngeen ko waaje ñaari camp yi soxla ko de. benn camp bi. <laughs> Diaw nga ne lan. ñaari camp yi soxla wuñ ko benn camp bi ñetti combat la jël ñeent la woon ma ñàkk benn bi war a dellusiwaat fii ci stade bi. ma dégg Kati Diop ma koy gërëm ndax man mu baax la ñu koy ñaanal yàlla jàppale ko yàlla bàyyi ko ci kanamu ndagaaru bàyyi ko ci kanamu Fass di ñaanal waa Fass yëpp di wax ni combat boobu nag ñun ñoo ko soxla Fass soxla wu ko ba nga laaj ma la neen moo tax boor Bordeaux di na ay weer am na Kati Diop jël combat bi teg ko ci loxoom bañ écarté Moustapha Gueye ngir bëgg combat bi. nga ne benn camp moo ko soxla jaw Moustapha Gueye Gris Bordeaux ñemewu ko écarté ndax lépp lu mu am ci làmb mbay Gueye la lu mu am ci làmb Moustapha Gueye la Kati Diop barka démb la ñëw na Gris xàmmee na téye Moustapha Gueye téye Abbas Ndoye téye Ibrahima Mbaye soog ci teg Kati Diop Kati Diop quatrième position la jël ba nga laaj ma leneen. jaw dama daan xam ne su Balla Gaye daan mësan toll fii jaw da daan bàkku jaw da daan wax fi Balla Gaye jaw wax fa mu daan toll yëg-yëg dum doon am jaw tey loo ñuy xaar ci loolu la ñuy xaar ci yow tey wax jot moo tax may wax mama yi yëpp waxuma woon mais tey jii la le 23 kon wax jot na may wax rek nii Kati Diop nee na li ñu lanc lamb ji lañ koy indi bu arbitre soufflé Gris dana dox ci kaw Balla Gaye xeex moom jàpp ko daan ko loolu nag animation la pour moom ndax moom loolu la am ci lamb ji na xam ni moo indi woon Yékini ma indi woon Balla Gaye toogoon na 15 ans daanuwul Kati Diop ñëw ma daan ko kon bu demee jël quatrième position ci face Kati dinaa la daanaat sa lanc boobu ak sa cong mu gaaw moomu ak sa këfalu googu ngay këfalu ba bañ ma jàpp la boo këfaloo ëppoon na sax dinaa la jàpp Gris Bordeaux ma xamal loolu ba nga laaj ma leneen. waaw xam nga euh, combat boobu dafa nekk combat boo xamante ni ñaar camp yëpp ko soxla jaww. Balla Gaye 2 ñàkk Double ñàpp ki xam moom mooy Balla Gaye 1 tey ndax wéet googu nekkul desul ci moom. Balla Gaye mas sa wéet Double Less dafa daan toog ca banc ba Balla Gaye 1 ñu diwoo boole ak magum Géejawaay yi Balla Gaye du mës li ñuy soxla ci élève nga dajale diplôme yëpp wane njàmbaar wan mbëri yoon wi Balla Gaye moo wane yoon wi giri daal di fait que suma frère la di frère u Balla Balla bëgg ko jàppale rek mais bis boobu bëgguma nga naan ma ñaari bis yi benn bis la boo xam ni Géejawaay daf ko soxlo te bu arbitre bu soufflé consoon nañ ko ma duma ko bëreeg moom ba mu dem këram xàmmeetul buntu këram bii duma ko duma xeex moom giri li muy wax ni damay xeex 30 minutes Balla Gaye mbaal sànni la fu giri jaaw dinaa ko laaw wallaay bu ma ko ŋooboo mu xam ni lépp dëgg la bu soloon silib sax dinaa ko ŋoob wallaay giri booy boobu ngemboo pëna nag combat bii passé ay bidon ak ay pën lu ne la def. yaa këfalu bu këfaloo ma daan ko bu këfaluwul ma daan ko. Mm-hmm. combat bii waaye bu ma ko ñàkkee delloo ñaari avance yi. soo ko ñàkkee. damay delloo ñaari avance yi. bii passé dañu gisoon sa cumukaay euh, euh, bi xajam ndax loolu préparé ngeen ko. ma ni ñi ñëwoon yabuñu nu ñi ñëwoon dañu ñëwoon pour Balla daan mais nañu toog ci kaw te ñu. képp ku bokkul école de lutte Balla Gaye soo tegee sa tànk ci cummikaay bi man danaa la toroxal man jaw sama bakkan dama dégg umaro naan sama bakkan mais ma ne suma bakkan suma xel suma xalaat suma doole ci combat bi laa ko teg dama ne mayeewuñu dara làmb ji ñoo ci man te dañu koy wane bu sooba yàlla ba nga laaj ma leneen. jërëjëf Jaw merci. loolu dem na moom. naa Fass ak Ndakaaru dañoo def ni jërëg soo waa loolu yàgg na. yàggut nag yàgg na léegi mu nekk at. kon yàgg na. mais dafa gisoon combat boo xam ne 2006 2007 muy diggante Yékini ak Moustapha Gueye. waaw combat bu machine yi waaw. mu jeex ca altine nga grand place foo dem ñu ne combat bu combine la woon. non du woon combine li ci laxasu moo bari woon rek. lan moo ci laxasu parce que Moustapha Gueye katee ko yoroon wëlbati ko la yor Yékini kon combat mënul woon yomb ci ñoom ñaar ñëpp te Yékini defeem mooy dama bëgg daan Moustapha Gueye parce que ki ko yoroon moo ma yor loolu rek ma dégg mag ñi nga fekkoon combat boobu ne lañ doon wax mi ngi nii combat bu combine ndax katee kawaafoon lépp. non non du du woon combine du woon combine. wala Égypte du woon combine. combat boo xam ne Yékini jëlu woon charge 100 pour 100 pour dal ci kaw Moustapha Gueye te Moustapha Gueye loolu la bëggoon pour waa jëg jël si ko mu mën ko juumloo mais jamono jooju Yékini moo ëppoon doole parce que Moustapha li doon tenté lépp noonu Yékini jóg jël ko. moom loolu la doon tenté. ma pour ju mburu loo ko loolu rek moo doon làmb su loolu weesoo ñu jëm ci la 7 août diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 ñii wax ne Moussa Gueye ñu ko écarté ci combat loo ci wax. non loolu président tontu na ci li muy tontu ba pare Fass famille la rumeur bi mën na dem fu ne mais ñun famille la ñu dañu takk takkan tuddante ay doom mayante ay jabar ñu lu ne xaj na suñu biir lu nekk suñu biir rek mën nañ koo defar te ci biir dara nekku fa waaw nañ leen yàlla ba bis ba rek. ci la gars yi xamee lépp bu soobee yàlla yoon tamit xam nga li Balla Gaye di saf xam nga li Gris Bordeaux di saf état ba nga gisoon ba muy bëre ak Balla Gaye bu njëkk ak état bi ba ban nga gën a wóolu. non ñaari état yëpp a baax. Gris yàlla daf ko dimbale dafa xam métti du entraînement li muy métti métti loolu rek la. kenn ku ci nekk nag combat bi am fu mu la yóbbu ba pare mu métti ci yow Balla Gaye ñaari combat bu daanoo ci bii lambam day gën a métti Gris Bordeaux dafa bëgg a daan Balla Gaye pour bëre ak ñaar xale a daan kañ a. daan na mais loolu lépp moo lay am na fu mu toll ci làmb fi mu toll ci làmb depuis tey seen la yaakaar naa fi mu toll ci làmb ke ñëpp bëgg a bëreeg moom mu am boo xam ne daf ko wane wane nag ci bis bii muy le daan Balla Gaye rek moo ko arrangé ci làmb ji defet kan la gën a bon ñoom ñaan ñëpp la gën a mais ci Balla Gaye la gën a mitee nag Balla Gaye waaw waaw nga nekk Fass ba nga daan bëre nan la daan woowee man booy mbay lañ ma doon woowee ndax daa nga tuuroo soow non daa ma tuuroo soow nag man vraiment ndax soo mbéygee fekk na la fa non fekk mbéygee gunge naa ko ci làmb gunge naa maam góor gi ci làmb maam góor gi dañ ñëw combat ma ak euh, Balla Gaye uh-huh. ñi ko gunge woon ci laa bokk ma doon xale bu ndaw keroog bi ñu dajee Balla euh, yàlla ko yàlla jéggal te ko uh-huh. am wax bu mu wax dama du mooy jooy ma ne xoolee maam gi tey mag la mi ngi bëre xale boo xam ne am na wax ju mu ko war a wax uh-huh. ci laa xam ne jom am na ko maam góor gi ko ndax soow mën nga ñëw wax lan lan mooy cosaanam ci ci làmb waaw soow nag sarax la rek xale yaa ngi koy def léegi mais ñu bëri xamuñu ko dafa am nu mu doon àndal loo xam ne sangar la bu muy dindi ci yow en même temps sarax la ci dëkk bi ah, dëkk bi ngay bëree mais xale yu bari xamuñu ci loolu. xale yi ko jël dañuy dem ci so ci pël ba rek dem jënd soow sottee ko. non nga ko jëlee ca pël ba sax mais daa am lu muy àndal. waaye tamit soo ne mën nga koo denc pour ñaari fan ñetti fan am loo koy boole pour mën koo sangoo. kii mooy kan. kii sama doom la kii mooy booy Maar ñu koy wax Maguette Maar. benn doom nga am buy bëri. waaw mais moo la am jël kon mooy sa naa la ko. jërëjëf mooy seen doom. jërëjëf maa ngi lay fay nijaay. man booy maar fils de Ibrahima Mbaye. fils de Ibrahima Mbaye waaw noonu lañ may man maa ngi si trois. ñaari ñaari benn bi laa gagné quoi. boo foo doonoo bëri. waaw su ma ko doonoo man mënoo dëkk Fass juddoo Fass yaroo Fass Ibrahima Mbaye di sa papa yow li ngir Fass Mbaye Gueye di sa baay kon lamb dañ cee am cër daal ñun man loolu laa gis daal. foo teg sa bët. waaw fi ma teg sama bët sori na fi gaa yi ñaan naa yàlla tey ni gaa yi di teralee seen i papa ci laam muy ay boo ñaa ñeneen ak ñeneen ma leen ma doxalee noonu ko sama waajur bu góor Ibrahima Mbaye loolu laay ñaan yàlla. lan moo koy maye. waa jom fu la ngoon ak jàmbaar moo koy maye waaw bàyyi lu bari nag jëm lu si loo xam te ni làmb la fonk entraînement topp samay grand frère lu ñu ma wax rek ma doxalee ko noonu. dégg na am nga gel de. non loolu mënul ñàkk si àdduna mais instant man aw ma gel moom ñeme naa kaa fu ma toog boo duggee sama koñ tam ñox xaw ma loolu laa xam wàcc ñëw gérer ko. waaw soo wax jigéen dama laa bëgg waaw loolu mënut a ñàkk si góor yàlla uh-huh. waaw mais jamono jii nii dañoo xam liñ bëgg si laam moo tax yooyu noonu duñ ko faratal suñu xëyee dem place ba asalem Las Palmas liggéey delluwaat Fass Mbao xale bi su ko gisee baa du fase non fii amul ku may fase uh-huh. li ma wax nii ragalu ma ko wër na Modou Mama réew ma see ragalu ma loolu Gris ak fi mu jugee neex neex naqari daan war a ko Balla Gaye 2 fi mu jugee ci Bombardier dal ci Gris am ñaari bési koy xaar Eumeu Sène Boy Niang neex neex naqari Balla dafa am obligation daal Mbour. Balla Gaye 2 ak Gris ku ci daanu mën ngaa bàyyi ku ci daanu. waaw. waaw. ndax daan doo leen a warut. Gris Bordeaux ak ni Fass demee tey booloo ba doon Fass bennoo ñoom Amadou Kati ñoom Abbas ñëpp del soit boot beneen Gris bees ñàkk waru ko. ñàkk waru ko. Balla Gaye 2 tey ndam rek ko jik ndax lim ñàkk ci ginnaawam. bari na lool waaye moom it ndam rek ko jig. Ah, man ko yërëm. jar naa yërëm nag jar naa yërëm. waaye ak ni mu toll. ak fi mu jógee ak li taxaw. tey combat bu tey ñu ci bari tey dañ jël Gris def ko def ko comme outsider maanaam comme ki dàq xeex ci combat boobu faram daa lool. dégguma. Gris Bordeaux lañ jàpp ni que bu dee ci wàllu xeex moo ci man Gris Bordeaux moo dàq xeex ci làmb. nangu nañ ko waaye xeexam feeñagul ci Balla Gaye 2. ñaari état physique yi ñoom ñaar gis nañu leen barki dem gis nañu biir yi ñoom ñaar lépp ñu ngi ci état physique bu normal. man loolu du ma ci wax xam nga loolu du ma ci wax damaa gisagut lu ma doy man. ñoom ñaar waaw. ndax état de physique. Euh, euh, média mën na lu ne yaakaar naa ne nit yàgg naa mel ni ngi sum ko mu mel ne ren Balla Gaye de Gris Bordeaux combat la boo xam ne nii. àdduna bépp ñu ngi koy xaar balaa ma wax dara daal loo xam ne nii mën naa ko wax sénégalais damaa bëgg dem ba ci signature bi xool ñoom ñaar tey la waaw. waaw jërëjëf Fara jaajëf. Balla tey mooy seen dernier fest. waaw mais combat bu neex combat bu àdduna bépp di xaar combat boo xamante ni verdict bi ba léegi moom lañuy xaar kon combat boobu buur bu dee dëgg rek nga bëgg a dëgg. mooy ku bëgg a gis làmb naga nga seetaan si le set. est-ce que ciy xaar ci bëre ak ci ak ci xaar ko ci gis. xam nga ñu bari maa ngi dégg ñu am ay rumeur yu ñuy wax te am na yoo xam sabote la xamal tax rumeur yan yan ko xamal tax sabote mooy forme bi nu jàpp ni Gris Bordeaux bu dikkee moom la war a andi wala ba Gaye forme bi nu jàpp ni bu dikkee moom la war a andi non bu nu baasewu foofu ndax nag am na fu nu jaar. te am na lu ñu dund ci làmb. est-ce que ñaari mbër yi am nañu état physique bu normal. non mais bien sûr buñ ko jàpp seen deru yaram nañ jàpp ni digg dëgër ku gën te li ma gis ci ñoom ñaar mooy bés ba bu nu sumeekoo ba kenn ku ne dogali da nga jàpp ni la nga gisoon ak li nga gis ni bokkul Balla Gaye de liggéey na Gris Bordeaux liggéey na. te tey man mënu ma jàkkaarloog Père Mbow te du ma wax ci diggante sa ñaari doom. Sidi Diop Omaro man xam naa sa digganteeg Sidi mais tey tiraillement boobu da Omaro dafa taxawoon li Sidi doomam la. waa xam nga boor man dama di woon du ma ci wax te duma ci wax mais sëb la la ko bëtt nga ca biir diggante boobu dafa xaw a sensible ci man muy diggante Omaro ak Sidi Diop ndax dañuy sama ñaari doom ndax Omaro lu gàtt gàtt. ña ba njëkk a fay salaire ci wàllu chute bi mu nekkoon muy 3 bi moom da cee bokk di Diop sama dooma yow buur nga xam loolu kon bu yàlla dogalee tey réeroo am seen diggante la ma bëggoon ñu def ko moo ñu pencoo ko ma toog waxtaan trouver solution ma ciy nuyu nag ma taaf suba teel te di ko jox wàccuwaayam teg gi mu ci wone ndax defu lu ci ci ñaaw waxu ci ñaaw seetaanu ci lu ñaaw kooku dama koy mentionné ndax nit la te yonent bi nee na man sama tarnaja ku noppi mucc xëy na Omaro xolam moo tàng mu wax wula mu def yëfi nit mais ci sama gis-gis man dama jàppoon ni bu ñu teeyoon rek mën nañ koo régler suñu biir te vidéo du am internet du ci jote kenn du ci joti waaye nag bu ndox tuuroo an baax a dex comme lii am am na ba pare ñun ñi nga xam ñooy mag ñi te nekk seen ginnaaw nañ jéem a toog waxtaan ak ñoom ñu xool nan la def ba xam ni ànd dëgg la waaye tàggalikoo dëgg la waaye war nañ cee waslu àq ba lépp loo xamante ni lu rafet la luñ ci war a mën a dox ku ci mel ne buur ak Medoune Diouf ñu ànd ko dox ko wax ko ngir Matar Diop suba teel ak Omaro ak siid Diop loolu laa woon du ma ci wax ci àdduna waaye kër gi sama kër munu ma bañ a wax loolu waaye loolee duma ko passé ndax gis naa sa caméraman ma nga ca gannaaw di la déy taman foofa duma ko jéggi. nee na diggante Lat Diop ak gaañ yi Géejawaay koo faral. noo xam nga Lat Diop ndawalu guddi la maanaam boo lambee daj da nga yaakaar ne Lat Diop rek ngay jaw rek yaa daj Lat Diop xam nga lu tax ni ma wax ak nii man maa ngi tool yi di bay barki Seydi Aboubacar Si Malick. woo naa la ba tey nga ne ma maa ngi tool yi. tuuti dinaa sama gerte ba raadu ko bay bay ba xaw jaay naa samay xar barki dem boo Njaay kon maa ngi sant yàlla mais dama Lat Diop ndawalu guddi la. Ahmed ku baax la monsieur le maire mooy maire mooy mooy mooy mooy premier magistrat di Guédiawaye actuellement nii nii nii nii mais dama ni Lat Diop boo ko lambee daj ko da nga moom rek nga daj. dégg naa wax ay waay xaayaan ku dégg séeréer dégg naa wax kenn du Lat Diop. grand Sall maa ngi lay fay. Euh, ñu jëm ci combat bu mag diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye Aliou Medoune sama sama sama tonton Medoune moom tonton ñëpp di la béggee yow Gris Bordeaux Balla Gaye mu nekk revanche combat revanche la le 7 août incha allah loo ci wax. Euh, combat bi en tant que jigéen nekk ci làmb combat boobu tey soo ma doon wax kan mooy favori kan la. favori Balla Gaye lay doon xam nga muy doon favori uh-huh. maanaam du ci bëree du ci lente. Balla Gaye moom mu bëre ak Gris daan ko par décision arbitre beneen bi Balla moom mujjee bëre ci arène bi diggante moom ak ki nga xamante ne mooy Bombardier kon man su ma joxee favori côté boobu laa joxee favori. ñëpp nee nañ Balla Gaye suñu bëree moom moo avantage suñu xeexee Gris Bordeaux moo avantage. Balla Gaye bu bëree mooy avantage. bu xeexee. Gris Bordeaux mooy avantage mais buñ day xeex day bëre mais Gris Bordeaux day xeex day bëre. combat bi daal xam nga lu ma si xaw a jaaxal tuuti maanaam ni ko nit ñi foogee man gaw ma ne day amee noonu. ci ban côté. ci xeex beeg jàpp ma ko daal ndax booy xool combat booy ci ngay gën a séentu li nga xamante ne moom la nit ñi yaakaar mooy xeex bi bëre bi à chaque fois luur yi bu ñëwee ay jël yu soof ngay gis est-ce que yaa kon daal seen physique daal euh, am seen xel dalu ci. ah am na lu ma gis de waaw sama xel xaw na dal de <laughs> ñoom ñaar liggéey nañ de. yow Paul gis nga gars nañ gën a liggéey waaw gis naa ne shooting yi photo shooting yi. maa gis ay biir wala ay dënnu yu wàcc ak yooyu. waaw mais ñu ngi liggéey nag wax dëgg neex yàlla ñu maa ngi gis euh, am ku naan Gris Bordeaux ak As bi mu yor foogoon naa amatul kii bi mënatul maîtriser forme bi Balla Gaye tamit gars yi mu ngi liggéey par rapport ak euh, Bombardier mais lamb ji daal loo ci mën a dégg ma ne la naxante lay doon kenn fàkkat sa morom. lamb soof nga may wax de yow lamb soof. barke yàlla ay quatre appuis nañ taxaw bëre jàmmaarloo sampu jaaga coow li daa bëri ñu leeral du dëgg nañ leeral ñoom ñaar nañ taxaw ñu leeral. mais ñiy wax ne VIP seen wàllu wéy na xale xale ya des nga bëgg a confirmer loolu. noonu la. àdduna noonu la ñii dañuy dem ñii ñëw ñoom seen kii bi ancien gloire fan lañ nekkoon doy petit gloire ana ñu jeexalu ñoom ñoo ñëw ñoom bientôt dañuy jeexal ay xale ñëw mais même booy jeexal tamit jeexalal ci fulla ak fayda ak jom mais pas jël luy soof yooyu grand Zal toujours Mor Kang Kang de. waaw Zal maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu métul bu baax te nga ci stade bi xew. waaw tey damaa ñëw en tant que Pikinois tamit comme amateur. ñëw seeti sa ah, soutenir si suñu rak waaw muy Sokh bu ndaw di ñaanal yàlla Tonnerre yàlla may ko ndam. da ah. moo tax promoteur bi jug jug tëdd tëgg dër bi Pikine Pikine Parcelles lu waral lool. non lii du dër bi. billaay wallaay ah, ñu nag Fass ñooy dër kon Parcelles dafa tudd bu dër bi. du dër bi. du dër bi nañu calculer ñoom ñoom du dër bi ñoom si ñun lañ jógee. waaw. loolu kon du derby mais xale day màgg. waaw mais ñoom si ñun lañ jógee lii du derby ñun ñun ñun ñooy seen ñun ñun ñooy seen kilifa. xam nga soo dékkee micro Khadim Gadiaga bi ne woon écrit Fallaye du wax lii derby la boo dékkee Conke Sine du la wax lii derby la boo bu kii yeewu woon léegi léegi Mathieu Pereira ma koy ñaanal yàlla ne na ko yàlla xare àjjana du wax ni lii derby la. xëy na booy yi ñooy wax lii derby rek mais lii du derby mais dama gis coow Ama daan doomu Ama daan ñu naan ko Bagola daan. waaw mu daw ci waa parcelle. ñoom mais day confirmé ne derby loolu soo xoolee saa Touba la ma koy nuyu waale bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ah dañoo daan soq mu génn fëgg dënnam. waaw ah, daa bàkkoon. waaw waaw loolu la barki Serigne Saliou loolu tamit man woo ko ci ba wax ko ko ci. comme nag xëy na nag loolu moo tàngal neeru booy booy yi jóg fekk ko fii mu toog tamit ma koy lancer waat appel keroog daa daa lancer benn défi ne waa Pikine nañ ma xaar dimanche loolu sax moo ma gën a indi fii maa ngi koy xool fii mais ñëwul. bi yàlla euh, defoon mu génn àdduna. ndax terrain bi ñu ko waxoon jot na ci. waa terrain bi wan waa ah, seen waa kër xam nañu terrain bi fu mu nekk mais problème bi mooy kayit yi law yaayam jotagul. mais wax dëgg yàlla terrain bu valable la dem nañu ci notaire bi. mais mais terrain bu valable mooy bëgg a jot kayit yi mu tur. ñu tegu sa tur. dem nañu xool numéro bi. xam nañ ni numéro bii numéro terrain bii Wally Seck moo ko moom de Wally sek moo ko may terrain boobu mais wax dëgg yàlla ñun ñu ngi ñaan Wally ak Amady Badiane bi nga xamante ne moo ñëwoon mu jébbal yaayu Jules Baldé Junior kayit bi ba léegi moom jotaguñu ci kayit bi waaw jërëjëf jërëjëf Saliou di wax par force yàlla na ma yàlla musal sax ci baat boobu duma ko wax billaahi wallaahi par force ko wax ndax jullit laa te lu waay def mu sotti rek yàlla la neex yàlla moo la mën a wat lu weex tàll ba nga gis ko mu def ko mu ñuul kuk loolu programme yàlla la xañ na coow li li muy bari bari fii mbëri fii ñoo yëpp ku ne indaale nga sëriñ mais lan moo tax Sa rek waaw Sa Touba dafa mel ni ñu bari da naan Sa Touba est-ce que du doy wut buzz ci làmb ji mbër mu ne Sa Touba ko ànd ak moom xam nga buzz buzz dañuy jaawale wut buzz ak itam gëm na yàlla moo la may est-ce que dëgg ndax booy wut buzz te amoo ci loo sukkandiku yaakaar naa it boo ñëwoon fii man sama empreinte moo ko marqué ci lamb bu dee lamb ji 90 litres laa fi indi 80 yëpp yàlla may na leen ndam ñaanal ñëpp mu nangu yàlla rek moo ko mën yàlla suñu borom bi rek moo mën a ñaanal ñëpp mu nangu amul keneen waaw ah, mais bu ñu ba ay ñu yor mbër ku mel ni Landiang def sorti ne Sa Touba musuñoo ñaanal ci làmb loolu tamit da mel ni Sa Touba fi mu toll nii yaa ngi waaj loolu bëgguma ci woon a bëgguma ci wax ndax ay kilifa nee nañ ma bu ci wax mais après bu waxam jotee dinañ ci wax allah li leer ba leer mooy bëri na loo xam ne suma ko jënd woon ci sama téléphone bi ay preuve kon dana doy waar trop barke sëñ Saliou. ah Sa Touba maa ngi maa ngi lay delloo ziar baax. ah ñi wax na Sa Touba courtier la du sëriñ nag. waaw xam nga tey nit ko xamante ni jëflante ak moom fekkoo ko këram xamaloo ko dara man mënu ma bañ loolu ñi ñu gën a yaakaar ci àdduna ki nga xam ne moo gën ñëpp sangob sang yi ñëpp nanguluñ ko waaye ku ñëw ba fekk ma fa ma dëkk da nga xam ba am Sa Touba ci lan la ne am déet waaw. diggante Parcelles ak Pikine Sa Touba da nga gën a yokku bës. waaw loolu yàlla la rek du man defaluma yàlla lu tax mu def ma nii. bañ naan Saa Touba Saa Touba wallaahi la azim barke Serigne Touba fañ ko yóbbu néew fa affaire yi barke alxuraan man dérangé wu ma parce que wax naa leen mbëru Pikine nag mbëru Guédiawaye mbëru Parcelles laa yemale ku ma fay dama lay liggéey li na ci man yàllaa ko ci def est-ce que yaa ñoom dañ leen i fay ñuy bëre ku ma fay dama lay liggéeyal ku ma ci fay duma la liggéeyal. tey lan nga wut sat damaa ñëw indi sama doom. la Petit Lo. ak kan. Dame Sène mboolem ko jógee parcelle mboolem ko jógee parcelle rek lay ñaanal yàlla. Ardo félicitation félicitation mbër félicitation. kii mooy kan. kii mooy Ardo moo bëre démb ak Saba. ku daan. waaw yow yow yaa fi woon <laughs> yow gis nga lépp. ci mbëru saatu waay nga waaw moom mooy parcelle. Ah. waaw moom mooy parcelle. ndax yëg nga ñaan gi. non moom moom moom xam na fi mu jaar ak ñun wax dëgg fa yàlla. waaw bii di xewalam jox ñu ne xam naa ne sarax yi dis na disaay boo xam ne amoo njëg li mais demal dina ko mottali bu soobee yàlla. yëkkati xaalisam jox ma yow loolu yombul daal. da lay ñaan ba pare jël ci poos bi jox la. man de loolu la ma defal te maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. lu ma dégg de. Hmm? dégg nga bi nga xamee Sa Touba ba léegi da ngaa wàññi sëriñ. non non non non non bu mu la jaxasee ak àdduna. moom dafa nekk nit ku ñàkk ki ñaan dafa nekk nit ku ñàkk ki ñaan ku ku ouvert ku ouvert quoi ku ouvert moom moom siisul quoi siisul añaanul dafa yóbbeeku waaw yàlla xam na ko jërëjëf man. man mbër buy ñëw ci man dama naan la ña la daan ñaanal ak lu mën a xew ci àdduna del delluwaat ci ñoom ndax ñaan kenn mënu ko fay te ki jël kurusam ñaanal la wala ki jël sungufam jox la wala ki jël xalimaam bindal la amoo fayam ndax amoon na yeneen yitte yu mënoon a defi waaye da koo def ci yow moo tax man du ma wax benn mbër ne la bàyyi sëriñ bi defal lii ku la daan ñaanal demal ci moom li ma war sama diggante yow nag ko def ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko mu defal ñu jàmm may la li ngay ci man ci gàttanu yàlla diggante Ama Baldé lan la. sama mbokku taalibe la ñoo bokk Serigne Touba. sa diggante la. sama papa la. amul woon ma sax musuma leen wax lu ñaaw musuma leen ko def. ñoom dañ la naa leen loolu du ma ci wax baal naa leen. ci xol bu sedd guy. Ama ndax di ko ñaanal. suñu làmb boole woon bëriwut ak Modou Lo muy bëre beneen mbër su ma li su ma soxlaa pour ñu liggéeyal ko mu liggéeyal ko. ndax ma lii mooy sama métier. duuma bunt bi nga bunt. man dajalu ma kenn samay bunt man taalibi Serigne Saliou la wallaahi la azim duy caaxaan billaahi wallaahi. yërmande Serigne bi rek ci laay dox. da ngay dégg lu ne nag da ngay gis lu ne. waaye nattu la bu ñu yàlla teg ñu nangu ko. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. bi géej jaay ak jàngat yi. alaaji commanda Thion. alaaji commanda Nana alaaji commanda Thion. sale bi géej jaay ak jàngat yi. alaaji commanda Thion da nga sonn ci lépp ji lool. alaaji commanda. ji ko mën na cuun da ngaa sonn ci làmb ji la ak Muhammad Rasulillah alaaji ko mën na cuun alaaji ko mën na cuun cuun cuun Ay, why, David, David, somebody I valley.

ajagam ni ci jogo may bu ko jëlee ma bàyyi ko ñoo indiwaat leneen daaw da demal demal demal Saliou maa ngi lay nuyu di nuyu Madoune Diouf Seydou Diamy Guèye. tey tey bu may. ah man man ancien waxalaan ak Sall. grave la dëkk du ma ragal. te baax na. baax na waaw baax na. de. jëm ci combat bu doy waar. diggante Gris ak Balla Gaye 2. balaa maa wax Madoune Diouf lii wax. damaa bëgg Madoune Diouf def ko extrait. Ah, ah. bu mu dara. ma ne wax. Madoune na ko def extrait dagg ko teg ko nee. pour loolu nga wax. Saliou Gris Bordeaux kañ am ndam ca Tyson ca Tyson <laughs> waaw xoolal ba mu bëree Tyson ak léegi Yékini la fi bëreel ak Modou Xarañ Lo daanaka bi muy toll ci période boobu ci la faas dund seen moment de trouble yoo xam ne Fass xaw na xar par dañu contesté woon tigri tidu Bordeaux ci kur maanaam ci titre Tigre de Fass mu jaar gis nga lañ ca jële jëlee na ma jàkk dama buur yàgg-yàgg maag Balla dinañ ko constat Balla Gaye day jël ñeenti avance ñeenti avance yi ci bi mu jàll ak bi bëree ci ga a sedd ndax ñaari ci des a gën a ñàkk na benn Bombardier gis nga ni mu demee moom avec la manière ci combat boo xam ne waa Guédiawaye dañ ci defal seen lépp Aziz Ndiaye def ci des centaines de millions. combat bi ko digganteem ak Bombardier. waaw bu jàll mu ñëw demee na muy demee. ga dalaat ci Gris Bordeaux booy ñaaw a ngi xaar ama seen daanoon la ñaari yoon est ce que Balla Gaye mais sañ naa daanu Saal. daanaka doy war bu daanoo musiba. Gris Bordeaux Fass daa jóge ci Fass dal ci Fass Benno Amadou Kati Diagne jël Moussa ñu ngi dellu si Abass looy dellu si Fass dajawaat di benn bopp ne ndam la ñu bëgg est que Gris Bordeaux war naa daan yomb de kon combat buy metti lay doon combat buy bari bagarre lay doon Gris déclenchement am ci bagarre ak ay am wóor na waaye na bañ Balla Gaye ñooxu ko Gris bu toppee xeex bi Balla Gaye ñooxu ko bu ko Balla jàppee mën na ko yegg fu mu foogul lii wax waaye bu Gris dëggalee boppam ci xeex bi Gris boo xoolee moo ëpp mobilité Balla Gaye day fixe di dóor waaye fu mu la dóor buntu fee te combat bi Abdou Aziz Ndiaye Baye Ndiaye Massata Ala Ndiaye Baara Gaye waa Géej waaye dañ ci teg seen kii ndax Balla bu ko ñàkkee rek musiba mais pour dëgguma la Balla Gaye mosuma gis xeexkat duma ko ah Balla Gaye Tapha Tine jamono yi ko fi wooye tax tax ci rib non wax daan jeex déet da duma naan ko nii dóor ko laa wax moom Balla Gaye déedéet mënoo ko tendre parce que taxawaay bi la parce que yow miy xeex ak moom saa su ne yaa ngi suur ni que mën naa rëcc mën naa mam te bu rëccee bu mammee lu mu ko fekk jël loo ko jox mu jël loo ko joxul mu jël na la jor daan yalwaanee rek ndongo léegi yalwaan ko sarax mu jël ko sarax mu jël ak doole Balla Gaye dee mooy alias ci kuli Balla Gaye dee saa loo ñàkk ñàkk xam-xam xam nga doomu duba lees la Balla Gaye loo xam-xam ak baatin saal xam nga ne dégg na roi des arènes Balla Gaye 2 ki gën a ës ci làmb ji gën fay dëj gën fay dëgër fit ëpp ci jom ëpp ci ngor di Modou Xarañ Lo boo ko daan ñaari yoon saal Balla Gaye maa ko woon ci kuli feeñal secret Yékini feeñal secret Yékini un invaincu un invaincu Yaxa Joob Yékini nga bëri la ko manœuvre ko daan ko na Gris Bordeaux def très attention waaye waa géej waaye ñu ngi bëri seen sànni tàccu ndax am na daan ñaari yoon saal Mbaw nee na ma combat bi suñ ko ñàkkee dañuy delloo ñaari avance. non buñ ko buñ ko ñàkkee ñaari avance yooyu mënatul exister di Aziz Ndiaye wax dama doon wax tey jii la safe waaw tey la safe Aziz daan wax mooy ca rond ba bu ñëwee diw ñu ñëw na war rond ba tey jii la safe ndax buñ ko daanee day wëri waat rond-point pour daje booy ñaar booba booy ñaar taxaw na ko wëri rond-point bi waaw pour information mooy dégg sa diggante Dakar ak ci lan la jàmm ak salaam keroog ba ma jugee Sénégal en 2018 Maroune Diouf yi moo ma ko ñëkk laaj ma ne ko man damay nit koo xam ne nit du défi laa ñëw naa Sénégal de 2013 à 2008 2018 am fu ma jëlee làmb am fu ma ko yóbbu waroon relever waat un défi ak Dakaractu ñëw fa de 2018 à 2022 Sall maa ngi bëgg a yàgg ci mbir mi yoon la nag. ma volé ak mes ak mes propres ailes. Mbarul li nu nar xamoo ko Mbarul. buur il est dans sa peau. Mbarul. maa ngi soog a sol mi ma jot zaal. fi mu nga daan sol dana xat wala dana waaw xam nga support médiatique bu ci ne. support médiatique bu ci ne dafa am nu muy doxee. da ngaa dafa am ligne éditoriale. Sénégo am ligne éditoriale waaye man pour bii Pro Média ak Bour Gueweul TV dama sama ligne éditoriale bopp. mais est-ce que du Bour TV bi nga xam ne moom moo moo génn est-ce que du fiiraanga googu sa patron gis. non non non parce que Bour TV génn lu mat moo dugg ci troisième année te Diagne Naar moo ngi doon toog di ko gis. non non no Bour Gueweul TV ne dérange pas. ne yaakaaruma ko ndax xam nga man doyen laa nag ci milieu bi léegi. Uh-huh. xale yëpp maa leen boot. Serigne Diagne mooy patron de presse bi ma njëkk may oto Serigne Diagne mooy patron de presse bi ma njëkk signal ay chèque Serigne Diagne tabaski dama daan ñëw muy tëral ñëpp woo ma ci pet di ma jox ma loo xam ne tëral na sama juróomi morom Diagne ñaar chéri aw Fall du ko fàtte ba ilaa yow mi diine barki alxuraanu karim ku ma wekk ku ma yëg ku ma respecté ku am ci man kersa goo xam ne su ma la nee relation boobu am na ci diggante employé ak son employeur doo gëm ndax ku amee lu ñu ma billaahi wallaahi lazi barke sëñ Mbacke Mat waaw waaw ah Diouf ah ah waxul foo jëm nañoo bàyyi bii pro maa ngi bii pro toog ak Bourguel TV maa maa nga fa toog waaw waaye ah mënul yaa ko wax de